3S jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant bu ngeen gisee ñaar ñi ñu toogal wala ñu ñu taxawal nga xam ne ay champion lañ ki ñu fi woon ak di jàmbaar production xale bi di bébé bis kenn du ko présenté ci làmb mu nekk naan bëri fi journée bu nekk waaye kii révélation la ci làmb muy Baba Jaxal mu nekk xale boo xamante ni moom it macha allah mbooloo mi bëre bi fit bi ak sañ-sañ bi ñëpp xam nañ ko ci moom man nag li ma jaaxal mooy jàmbaar nu ñu def ba taxawal affice bi war nañu ko wax wala wax ko yeneen promoteurs yi ñu fay mën a jaar parce que yaakaar naa ne journée boobu journée bu garaaw la ndax combat bu ci nekk am na ci promoteur yoo xamante ni bu ñu ko amoon wala ñu may ko Modou Anta wala man dañ koy def grand combat combat bi rek doy na grand combat ñu ngi nekk ci weeru koor nag ñaari mbëri ñu ngi nii taxaw kii di Bébé Bismi naan la ci làmb moom it gis ngeen li nga xamante ni def na ko ci làmb moom it baaba Jaxal bi mu ñëwee fekk na ko fi ñu nuyonte saafoonte waaye lii ñu njëkkee man xam naa ni duñu ko mujjee Bismi léegi nee na dafa xiif taxawaay bi day xaw a metti ci moom waaye dañu koy jox mu nuyu mbokk internet yi wax digganteem ak Baba Diakhal nuyu ko baalu àq ñëpp ñu baal ko àq ñaan yàlla suñu borom mu boole ñu jéggal mbër maa ngi lay siyaar bu baax di la màggal. oui maa ngi delloo ziar yow asalaamaaleykum waaleykum salaam di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar yéen ñëpp. Hmm. di leen baalu àq si koor gii ñu jugee nii di si koor gii ñu nekk nii. Hmm. di baalu ñëpp àq xam nga di baal waa Kambil àq di baalu samay dëkkandoo yëpp ñëpp àq di leen wax yàlla yàlla may kooru jàmm salaam xam defal ñu lépp lu ñu bëgg si koor gi yàlla defal ñu ko di nuyu sama adversaire Baba Jaxal di ko baalu ak ak ñu mu àndal mm. di baal ñëpp àq daal mm. du nuyu nag sama sëriñ mm. xam nga di ñaanal sama sëriñ yàlla na bàyyi ko fi mu gudd am wér ñaanal sama sëriñ sëñ Ablaye yàlla bàyyi ko fi yàlla yàlla fi mu tëdd gënal ko fi mu jugee si barki Seydouna Mouhamed di ñaanal sama yaay yàlla bàyyi ko fi sama paa fi mu tëdd yàlla na suuf sedd si kawam ak mbooleem néewu islam yëpp di ziar sama grand mor xam nga moom mi taxawal li affaire bu nice xam nga lii daal mooy loolu ayca euh, dégg nga li Bébé Bismi wax ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. ginnaaw ma sant yàlla julli si yent bi. Hmm. sant sama ñaari waajur. sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ. Hmm. yaay yàlla na fekkee sama njëriñ. mboolem ku nga xam ne sa yaay a ngi dund yàlla na fekkee seen njëriñ. di ñaan maam Thierno Babulaahi baabul Janat sama sëriñ sama wasila yàlla na fi yàgg te wér. Hmm. di baalu ñëpp àq nag di baal ñëpp àq. di baal ñëpp àq di nuyu samay xarit xale yu ndaw yi moo mi nii mais mm. xarit Baba Jaxal mm. di baalu àq waa Sam-Sam mm. jàmm gën fépp fépp ku nga xam ne fan si Baba Jaxal mu ngi fa maa lay baalu àq si weeru koor gi te di leen baal yàlla nañu yàlla boole jégal di ñaan sama papa nag suuf yàlla nañ oyof di nuyu Mor mi nga xam ne jàmbaar TV ñoo taxal combat bi di leen nuyu nga xam ne amuñu seen fay di ñaan lii nañu soomi waaw nañ ko mën a naan te yàlla nañ si réussir si barke borom daara amin moom de def ne mu lay baalu àq man baalu yaakaar na ah dala ameel àq yéen kay amee goo leen àq dafa seew àq bu ngi ñëw ci kanam la àq dafa seew mun nañu baalante baal naa ko àq yàlla na mu yàlla boole jégal ñu euh. bokkoon ñëpp euh. mbër baal nañ la àq yéen ñaar la ah xaw ma sax laaj naa leen ko tëj barrière xeex ah. dóorante kurbañ ah jàmm du jàmm de jàmm mun a <laughs> baax jàmm <laughs> ah du jàmm si yéen xeex dóor a dëkkër bañ. ah jàmm la wax dëgg yàlla. xam nga bébé bis xam nga ko. Jaxal da laa xam. non xam nga ko laa man sama bopp laa xam. daa ngi bëre ku dangereux ci làmb. mais sant yàlla comme que dem nañ bay bëre ku danger. Hmm. te yaakaar naa ne Jalle Birame Thior école la di Jalle Birame Thior. Hmm. ñu fa nekk yëpp ay danger lañ. Hmm. fekk maa ngi jàppante ak ñoom. ku mel ne ñoom Bonaar Fall ñoom Modou Baye Fall ak Ba Tafaten. ay ñàkk jariñu alliance bi ah mais sant yàlla. yaa ko laaj dañ la ko proposé wala yaa bëggoon bëreeg bébé bis bi. non laaju ma ko de. dañ la ma ko proposé làmb làmb bu ñu làmb day taxaw sama diggante maam dañuy taxaw ñu bëre. dégg naa bi ñu la koy proposé daa fekkoon nga tëdd mais da jug toog. mais dégg naa nga wax de. Ah? naa. waaw ah? kon amu góos la leer. waaw léegi loo def. bi la ko proposé. non làmb la man doo nekk ma pour bébé bis mi kese de wëndang bi mu ngi fi ak ñëpp ak mbëri yëpp ki nga xam ne laamu boole na ko ak moom promoteur yi fay ko ñu bëri. Hmm. loolu laa ma fi nekk. Bébé Bismi adversaire yi ñu la doon proposé bari na lan moo tax nga jël suwaaw Baba Jaxal. suwaay mooy li yàlla moo dogal maa moo doon bëri rek suwaay ba loolu laa ko jàppee hmm. du dara taxul nag mu jël jàpp ne maa ngi moo waroon bëri rek. Hmm. nga ko bi koy jot. non xaw ma ko mooy loolu. def nga musiba de xaw ma ko. jël koo xamul. non boo léegi xaw ma ko maanaam boog xam xam naa turam xam nga mais xam nit ki day fekk mu def la xamante ni li tax ñu ko war a xam. Mm-hmm. moom bëriwul ak kenn. non bëri na ay ndaanaan ñi mu daan ay ndaanaan lan. est-ce que ay ndaanaan lan kay bu loolu ay ndaanaan duñ bëri fi ndaanaan da ngay dugg si géew bi. Hmm. Mm-hmm. loo ko fas yéenee yan moom ah parce que yéen gu yan fi di commencé quoi. Ah, da ngeen ni koor rek naa ne jub jëmmal. moom du ma ko yan dara nii moom dama koy bàyyi ñu wóor jàmm ak salaam mu nekk xam nga. Hmm. comme koor gi moom kenn du si teg kenn dara lu hmm. ko bàyyi koor gi rek doy na ba si kanam. Hmm. yee. yéen ñaar neexoo ngeen de. jegeel ni. alhamdulilah ñu ngi nii. possible sama gars yi wax leen atte leen. xam nga dañoo ne làmb. waaw na koor gi. njool la hmm. na yen waaw nee na bëgg laa yen dara fi mu toll xam na ne dina la yen moom du la ko yen léegi. dinaa ko yen lu métti yenaa la ko koor gi mu gën a métti si moom. moom mii mën nga ko yen lu métti. ah ku dul moom sax mun naa kaa yen lu métti bis naa la Modou Lo sax laa soxla biir parcelle. loolu de mooy bëtam tegu ko ci yow xeeb na la de. non am na yoo xam ne du ma tontu man man man man man du ma tontoon nii tamit am na yoo xam ne du ma tontu man am ne ma si tontu. mais am na yoo xam ne dama siy tontu. sama wax sama wax la. mais li muy wax noonu xam nga Sénégal kenn du ko si tontu. dama xam ne kenn du ko si tontu rek. am na gëm-gëm waaw mën naa am gëm-gëm bi xam nga man gëm am gëm-gëm bi am gëm-gëm bee bee bëreeg bee am gëm-gëm bëreeg Modou Lo ku ne waaye mën nga am gëm-gëm bi dugg ba si biir géew après boo paree nga xam ne lii nekk du woon sa gëm-gëm du loo war a gëm. Hmm. Hmm. kon da ngaa jàpp ne da laa xamul. man moom wax nii xamul la man man nga jël sama avance wax lu la neex ba jour mais le jour ji boo dugganteeg ba ni ñiix ba ku jàpp sa morom ku nekk di nga xam kii kii ma doon waxal loolu laa am lu may wax quoi. dóor mu daanu mun naa am. làmb moom lépp si am lépp. bëgg nga ko dóor mu daanu moom. non bàyyi ma bàyyi ma daan rek mooy loolu. lay daan waaw am na jàpp. waaw kaay yegg si waaw waaw oui dégg nga ko Fatma Diallo li mu la wax. Ardo ndaanaan la champion la combat bu mu am yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm mais que le meilleur hmm. ainsi sama combat kii moo taxaw. non man waxuma daan nooy de làmb ji amul lu nooy. nee nañ mbër am na fooy tool di bëri di bëri il faut nga jël benn risque bi wane sa bopp. Hmm. néew ma kii risque la si man de mais il faut nga risqué àdduna si boo risqué doo am dara. daa ay ci booy de ak ay ci booy. Bébé Bismi booy bu ne ci yoon jaar ci autoroute bi di daw <laughs> ah, moo ci aay. wëndëng bi lu nekk si kanamam lu ne da koy faxas jàll. baaba jaxal wëndëng bi. lu nekk si kanamam lu ne si kàttanu yàlla. Hmm. da koy faxas jàll. moo daan rek ay jege sil daa mel ni am na lum la guuxal de. ah am na lum la guuxal. ma loolu lay wax nii am na lum la guuxal lu ma waay bu ma la jàppee da nga koy wàccuwaat. ñaw. Hmm. waaw loolu kese kon guuxal bi yëpp fii la ci buntu arène bi mais du ci biir. man daal lu waay guuxal bu ñu jàppante koy wàccuwaat loolu maa la ko wax ak ku mu mënti doon nag. loo xam-xam ma dem ba ma dem gën laa xam boppam. xam nga xam nga ñaari mbër de waaw maa lay siyaar bu baax a baax di nuyu mm. suñ mbokk internet yëpp di leen baal àq di leen balu àq si weeru sell wi mm-hmm. di siyaar suñu mbokk yi fi nekk yëpp boo limee da ngay juum mm-hmm. wax dëgg yàlla di siyaar di félicité waa waa jàmbaar production mm-hmm. wax dëgg yàlla nekk nañ promoteur yoo xamante bi nii seen premier tous ren la mm-hmm. mais macha allah gis nañ ñu taxawal affiche yoo xamante bi nii dañ ko doon xaar ci promoteur yi nga xamante bi nii ñoo fi jiitu woon ci làmb mm-hmm. waa jàmbaar nag boo leen gisee xam ne ay ndaw lañ yoo xamante bi nii ñu ngi doog a sol mbubbu promoteur bi mais yàgg nañ sur le terrain yàgg nañoo liggéey ak ay promoteur yàgg nañoo jàppale ay promoteur te wax dëgg yàlla lépp naagis na ñu andil ñu suukaru koor boo xamante bi ni nag ginnaaw franc ak ki nga xam ne mooy soq. Mm. combat bi dasee bokk si combat yoo xamante bi nii yaakaar naa ne combat yu neex la. suukaru ah, si suukaru koor la fan yii suukaru koor yi daa ah, xew. xam nga yooyu la ñuy joxe ak ah, yeneen. wax dëgg yàlla ñu boole ñaari xale yoo xamante bi nii macha allah hmm. kii bi muy bëree boobu yaakaar naa ne ay atam matew ko pour mu bëree. muy hmm. bébé bismi hmm. dafa teel a dugg si làmb parce que bi muy bëree xale bu ndaw la. boo dee xool sax combat yi dafa bëri. ñoom Balla Gaye li ñu am si combat loolu la am si combat. ñoom Modou Lo presque foofu la tool parce que bii mooy vingt-troisième combat. loolu du caaxaan. te kii sama wet six combat Baba Diakhal cinq victoire benn défaite. Mm-hmm. moom Baba Diakhal wax dëgg yàlla mu nekk ndaanaan. <laughs> dinaa ci ñëw léegi mu nekk ndaanaan wax dëgg yàlla hmm. parce que tamit boo dee xool journée yi mu bëree yëpp hmm. cuune du fa bëre gis nga ko bi mu mujj fii Clémenceau hmm. baat ak tontu la gis nga ko bi mu jàng mujj ak moom Pape Pape tontu la moo Belende Junior baat ak tontu mook Adidas baat ak tontu benn defet la jooma ko daan kii nag daa aay ci xale buy dem comme ni ko Xaadim Seck waxee booy reef tolloon na fi mhm. mu daan mhm. Zal Bambay tolloon na fi mhm. mu daan Cheikh Super Jamono tolloon na fi mu daan Ndiasse de tolloon na fi mu daan ba daan na grand kii taxaw alliance biram moom bis bi ah ak bébé taal ñoom xam nañ ko yooyu lay def ak yeneen. jiile revanche la joxe revanche la waxal ak ñoom ay revanche ay revanche nga boole dégg nga Maodo Atta nee na ay revanche nga boole indi fii. ñëwal waa revanche bu daanee alliance bi ram ah. dugg naa parcelle daan fa koo fa daan daan naa fa ñaari nit waaw ah. kon waaw bébé taala waaw champion la ndaanal la di nuy alliance biram sama sama mag sama lépp di ko ñaan yàlla na ko yàlla mooy combat am si ndam kon alliance biram ngay jël revanche non sama bopp laa ñëwal jëlal sama revanche boobu. Eh, pour booy bi am na lu la góoxal. booy bi am na lu la jàppal nanguwul wax nag. tekk moom wax man li ma la wax leen moom ku ma guuxaloon biir géew da ngay wàccuwaat lépp moom loolu maa la ko wax moom ak ku mënti doon. dama ragal guux bi moom brousse la ko. brousse ko. brousse yaay si kanam. ñeme nga ko koo brousse kii. ah géant la de njool la de. géant la gisoo. ah ñun de ñu ngi fi sant yàlla rek di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla yóbbu ci jàmm ah. hmm. baax di la si waaw Baye Jili maa lay nuyu di nuy mokk internet yëpp. Hmm. waaw di baalu àq ñëpp si weer wu seetlu yi ñu nekk di baal àq ñëpp. Hmm. waaw di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg. waaw ñu ngi rafet lu baax seen liggéey. waa di gërëm presse bi fi teew yëpp. waaw en fait euh, Baye Jili ñu ngi ñu ngi gërëm tamit staffu jàmbaar production bi yëpp xëy na njiit bi man lañ teg si kalam mais staffu yaatu la. Mhm. amaana comme ni ñu koy waxee rek ay différent personnes ñoo si nekk ñii ñu ngi pikin ñu ngi si nuyu le président Goro Ndoye mhm. di kuy joxe xalaatam si jàmbaar production. Mhm. waaw di nuyu Fadam Zion tamit moom moom it. kuy joxe xalaatam la tant d'autres bëri na ay membres yoo xam ne ñu ngi si yeneen secteur waaw di si joxe seen xalaat bu baax. di nuyu tamit Xaadim Anta Seck mm-hmm. wax dëgg yàlla gis nañ tamit taxawaayam si jàmbaar production boobu ba léegi mu ngi fexe journée bi nan lañuy def pour mu améliorer mu am niveau mm-hmm. waaw te tamit gis nañ ne le 19 incha allah suñu wàccee si géew bi jàmbaar production dinañ xam ne ñii amaana mën tur bi mën na nekk gan si làmb mais ñi ay organiser làmb dun ay gan si làmb mm-hmm. moo tax suñu tegee plateau bi rek monde làmb amateur yi yëpp waaw le 19. jàmbaar production incha allah wane bu ñëwee rek. Baba Jaxal ñëw ànd ak wane ngi magi ànd ak ay soppeem. ak i mbokku taalibeem. billaay di ngeen réussir. waaw incha allah di wax tamit comme euh, jaxal ni mu ko waxee rek. Mm-hmm. mën na ne crème mu làmb si espoir yi dañ leen boole le 19 juin. Mm-hmm. waaw le fait que nga indi baaba Jaxal bébé bis indi euh, jeex jàmm digganteem ak Aliou Fat Fat. Mm-hmm. indi tamit euh, caatu piol Ibu Afia maanaam dañu boole crème lamb bi nga xam ne promoteur yëpp seen xel da si nekkoon mm-hmm. waaw ñu décolosé ko caatu sensala ku ko si amoon parce que ñaar ñi taxaw nii bis mi yaa gën a bëre grand combat jaxal proposé nañ ko grand combat mm-hmm. jeex jàmm proposé nañ caatu piol pareillement ça veut dire ne si bëri ñëpp presque ñu si bëri proposé na leen grand combat mais ñoom dañu sentir bëri si le 19 juin parce que tamit bis bu mag la bis boo xam ne lamb da Ah, dekkiwaat wanewaat beneen xar kanam si côté espoir yi parce que tamit ñii ñooy ëllëgu làmb te làmb tamit eh, il est temps relève bi nii ñu leen di favoriser jox leen seen cër jox leen seen valeur. Mm-hmm. final fi mbër cent millions 50 millions te ñii nii ñuy def stade yi ñooñu duñ ko def ah, stade. ça veut dire ñii mérité lu neex si làmb. moo mm. tax saa su ne suñ vision dañ day tegu si ñoom. Mm-hmm. te tamit dañuy am yéene jàppale leen bu baax a baax pour làmb mën leen xam adduna mën leen xam te hmm. incha allah suñu commencé phase promotion le 19 bi hmm. dinañ xam ne jàmbaar production bi ñëwul si làmb pour jouer ay seconde la leader leen bëgg a nekk hmm. te tamit ñu ngi si afice bu mag waa di ñaan yàlla mu sot su sotteeg jàmm affiche boobu le 19 bëgg na ñoom ñaar ñu jàkkaarloo fii si stade bi arène nationale bi waa te incha allah sànq rek récemment signé naa ak Momo Ngom ak euh, Mbayang Loum ñoom ñoo nar a animé làmb ji muy war ne cosaan dafa war am si journée bi quoi. diop bu garaaw waaw diop bu garaaw leen signé ak leen signé ñoom ay contrat pour le 19 juin. Hmm. te am na yeneen innovation yoo xam ne tamit jàmbaar production mu ngi koy waajal pour le 19 juin. Hmm. te incha allah li ñuy gën a dem plateau yi di gën dem dinañ gën a yaatal suñu programme ak projet bi nekk nii nan la ñuy def pour làmb àdduna ñëpp bàyyi xel jàmbaar production bi daal. jërëjëf am na solo ñu koy jaajëfal bu baax xam naa ne àjjuma bi. was his fault?